asalaamaaleykum euh, mbokki Leral TV donc ñu ngi leen di nuyu ki nga xam ne moom mooy euh, Pape Birame ak euh, ñi nga xam ni ñoo nekk si micro plateau bi yëpp comme ni nga waxee donc élection yi commencé na fi nga xam ne moom fii si diwaanu Ndar tey ji nag ñi ngi woon fi nga xam ne moom mooy fii ci école CEC wala ba centre CEC bi nga xam ni dañ ko délocalisé fi nga xam ne moom mooy fii ci institut Al Azhar foofu nag ki nga xam ne moom mooy Déthié Fall moom fa la wootee tey jii 10 heures 40 bi mu jotee la wootee foofu daal def li nga xam mooy donc son devoir euh, euh, citoyen euh, gannaaw ba nga xam ne Déthié Fall nag ba ca nappa nag bi mu génnee nag kaddu yi donc la daal di bàyyi li nga xam ne moom mooy taskatu xibaar yi. li sant sunu boroom bu baax a baax bi nga xamee ni may nañu ci processus bi nga xam ni bi mu tàmbalee ak léegi mat na at nu jàll parrainage Sénégal yëpp mobilisé wu ba yombal ñu ko muy ñi nekk fii ak ñi nekk bitim réew. di sant it sunu borom ba nga xamee ni may nanu ñu fekkee bis bi bisu wat bi nga xam ni ku nekk ci Sénégal jàpp na ni lu am solo la ci lii ñu nekk mais aussi ci ëllëgu réew mi di woon ak sénégalais yëpp ak sénégalaises yëpp ku nekk fa nga mën a ne nga mobiliser wu ñëw def acte bi. ba ñu jógee nag fi nga xam ne nag moom may foofu ci Déthié Fall ñu ngi woon nag fi nga xam ne moom mooy fii ci si école Makodou Ndiaye. Makor Ndiaye lu tax nag ñëw fi moom mooy ki nga xam ne moom mooy le ministère maire Matour Faye euh, fi moy euh, bureau de votam euh, fi la donc voté nga xam ne moom mooy bureau numéro un fi la voté tey jii suba bi nga xam ne moom mooy 11h passé na ba tagal li nga xam ne moom mooy fanweeri simili ak juróom. léegi depuis quasiment 9h man maa ngi fii mais ci lu ma gis amul benn problème tout se passe parfaitement bien nit ñi génn nañu am nañu teel am nañu teel a ñëw voté dem seen yoon. am na ñoo xam ne ñu ngi continuer di ñëw gis centre bi dafa animé tuuti donc benn jafe-jafe dégguma ci coow dégguma ci xuloo dégguma ci wax donc loolu moom lañuy sant suñu borom ba fii ñu toll daal en tout cas ba dara amul te gëm naa ni aussi dara du am parce que bon vous savez Sénégal yàgg nañuy voté rawatina ak Ndar Ndar ci dëkk yi dëkk voté ci Sénégal ci la bokk donc yàgg xam nañu luy vote donc nit ñi dañuy ñëw rek def seen devoir citoyen ñu maanaam voté et puis am na ñuy toog xaar am na ñoo xam ne daañu ñibbi xëy bu ngoonee ñu dellu si. di jaajëfalaat bu baax a baax ñëpp ñi xam ñooñu doon suivre donc lii lañ jëlee woon tey jii fi nga xam ne moom mooy euh, pour le moment fii ba ñëwee fi nga xam ne moom mooy centre euh, donc bu euh, bi nga xam ne fa la candidat bi di Déthié Fall wootee ak fii di centre Macodou Ndiaye bi nga xam ni fa la Mansour Faye wootee loolu donc moo amagum ci ay xibaar fii ci nga xam mooy élection yi fii si diwaan Ndar dina dox daje incha allah ci beneen